dafa bëri ay anti inflammatoire la dara kase mais antibiotique la dafay éliminer les germes les mauvais germes les infections aux germes sensibles dara kase daf koy éliminer dafa am benn. Wilane TV la voix des sages la voix des sages waaw macha allah xam naa nag euh, impression yi nga xam ne am naa ko ci environnement bi mooy tey je suis tellement content dama bég ci fi ma parce que nature la nature l'importance de la nature xam nga yalla dafa bind doomu adama bind ko ci ay gratte-ciel ak ay immeuble yalla ay defar nit defaru ko fu mel noonu bi yalla wacce adina ci nit dafa liggéey ba japp ni adina pare na ba xam ne àddina pare na fii mooy dëkkuwaayu doomu aadama la ko def lam ko décoré du won ay immeuble du ay gratte-ciel du ay bâtiment du ay tali du ay port du ay aéroport du ay lamp yu tàkk mais garap la defar ay rivière ay ñax oxygène océan l'environnement environnement boobu environnement ou nit Moi, environnement ou nit doit immeuble doit ay gratte-ciel doit ay salon doit ay moquette doit ay carreau du luxe du salle de bain yu rafet du lal yu environnement ou nit la nature environnement ou nit la nature environnement ou nit moi grappe, moi oxygène moi gàncax moi nyach loolu mooy environnement bu naturel ak doomu aadama moo tax nag moo dëppook psychologie wu nit mais moo dëppook également euh, yëg-yëgu nit sensation mooy li nga xam ne moo koy dundal biologiquement mais également moo koy dundal spirituellement moo tax man li may feebar ci àddina li ma gën a mën a feebar mooy ma gis kuy dagg garab pour tabax parce que garab goo xam ne yàlla def na cent ans pour saxal ko yàlla liggéey na cent ans pour meññal pour saxal genn garab garab gi màgg meññ mu am ay fruits yu ay nit di dagg di ci mu am ker gu ay nit am fruits yoo xam ay picc ngi dund wala bëy yi di ci for nag yi di ci for muy keral gi di dégager oxygène nit ñi di ci dund di ci kerlu nga dikk ni ko cëpp dagg pour tabax est-ce que dëgg-dëgg war nañ seet ba xam ni mu def ak ou pas ndax améliorer environnement tabax tax nga dagg garab goo xam ni ay milliers de picc ñu ngi ci doon dund ay milliers de bëy ki nag ñu ngi ci doon lekk ay doomu aadama ñu ngi ciy lekk mais nit ñi ñu ngi ciy kerlu mais yemu ci mooy garab gi mi ngi dégager de l'oxygène ñu koy respirer nga ni ko càpp dagg pour tabax benn néeg moo tax xamuñu le respect bi nga xam ne moo ñu war ci environnement niñ ko war a préserver nañ ko bàyyi xel niñ ko war a préserver j'ai l'impression que ni Gambie dafa mel laa ñëw ben parc bo xamni bu done ay rap dama nan park la mais fi parcu garab la ñax la gantax te ji naru bët gis na ko fi lu bëgg a gis gis na fi ay xeetu rap ak végétation bo xamni bu luxurante importance bo xamante ni si macha allah donc c'est très important nit ñi gëna bayyi xel l'environnement j'espère bien que ni le gouvernement dinañ liggéey ci lool bu baaxa baaxa baax ba mëna préserver suñu environnement surtout même d'ailleurs, suñu forêt classée de mbaaw boobu parce que dafa nek lo xamni chaque fois bon forêt fa rombee damay tiit parce que dama nan xamna ni rek léegi ñu gor ko tabax ko ay tabax chaque jour loolu lay wax donc bu ko defee yooyu yëpp na si nit ñi bayyi xel bu baaxa baaxa baax insha allah li ma yor ni maa ko fi witt tay yi ma ànd ak Moussa Gueye laa àndal malheureusement ab la ma ma daggoon 20 euh, darkase mu lek 19 ya bàyyi maag benn bi ni xam nga darkase dafa intéressant dafa bëri ay anti inflammatoire la darkase mais antibiotique la fay éliminer les germes les mauvais germes les infections et germes sensibles darkase da fay éliminer dafa am benn acide bu ci nek toxine la acide la bo xam fay éliminer également les mauvais cholestérol c'est tellement important et puis ça bi aussi dafa bari magnésium dafa riche en magnésium mais tay jii suñu environnement pratiquement amutul dark c'est ni sax lekk ko parce que ñom lek dara c'est bon voilà affaireu xalé la quoi alors que lek dara c'est tellement important si nit feebaru biir yu bari yu ngay am daf koy éliminer mais ñoom motax ñi dëkk ci environnement yu bax yooyu da gis ni ñoo gëna a sane ñoo lay ëpp lucidité ñoo lay gën dal tay angoisse ak stress bu bari bi ñuy dund dara warul lu ko parce que tout simplement dañoo dëkk ci ay pot ak saxaar yi tak auto yi rombu avion yi naw bruit bi bari ci ay carreaux ci ay ruq ci ay couloir la ñuy nekul espace yo xam nit ki dina génn respirer de l'oxygène pur ci ay ruq xar yi mbee fii bool yi daanu fële c'est pas environnement boobu c'est pas humain donc nañ si nit ñi bàyyi xel ñu jéem a améliorer suñu environnement kenn ku nekk sa kër jéemal créer benn espace créer de verdure créer benn jardin implanter ay garab saxalal ay garab ça c'est important pour la jeunesse surtout pour les générations futures dina nek lo xamni lu len jariñ la donc lool rek la noonu naa ci doli wilane ci question bi nga ma laaj ñu ngi yaan di nuyuwaat wa rahmatullahi wa barakatou Wilane TV la voix des sages.